الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ينبغي ñu ngi sant suñu borom suñu borom boobu nga xam ne kenn yooyoowul lu koy jaamu ku dul moom di ko ñaan mu julli suñu yonente ba muhammad salallahu alayhi wa sallam kenn yooyoowul lu koy roy ci diine yàlla je ku dul moom salallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla te sax ci loolu ba dee fekke leen ca suñ xutba tey bii mi ngi nar a jëm ci mbir mu màgg ba ñu suñu borom yàlla sant ca mu bokk ci santaane yi gën a kawe te mooy sant ñu ci ne lañuy sant ay xéewalam mbokk xam leen ni suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na su leen ne man ngeen bëgg a jaamu de yi xéewal yi ma leen xéewal sant leen ma ci suñu borom jàkkaarloo ab yeneen tam ne ko jaamul yàlla kese bu ko bokkaale dara ca nga bokk ci jaam yi nga xam ne dañ may sant loolu la waxoon yeneen yàlla Muusa Muusa yow kat tànn naa la jox la soo téere tànn naa la wax ak yow te it li ma la jox ci kàttan te nga bokk ci jaam yi may sant mu tagg jaamam ba ibrahima alayhi salaam ne ibrahima day moom nekkoon na koo xam ni moo li ñu xéewal yëkk yàlla defaloon daf doon sant boroomam subhanahu wa taala shakiran li anumi loolu la waxoon it sunu maam ñun ñëpp muy nuux alayhi salaam mu ne yéen njabootu nuux te ñun ñii ca lañu bokk xam nañ ne seen bàyyi boobu day kaana abdan shakura jaam la bu doon sant boroomam subhanahu wa taala mbokk lan mooy xéewalu yàlla ci ñoom xéewalu yàlla yooyu mooy ya nga xam ne dañoo judd fekk fi mu continué di taw ci ñun di ñu jóge ci li feeñ di ñu jóge ci lu nëbbu xéewalu yàlla yooyu mooy ya nga xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na doomu aadama yi su leen bëggoon lim samay xéewal mënu leen ko li ëpp ci yéen nag dañoo doon toonkat weddi ko ci xéewal ay yéen mbokk julit xam leen ne sant yàlla du rek feeñal ci sa làmmiñ ne yaa ngi sant yàlla wala alhamdulillah waaye xam leen ne sant yàlla dana jóge ca la nga xam ne mooy ab xol sa xol bii mooy jëkk a yëg ni mboolem xéewal yi nekk ci yow mboolem xéewal yi nekk ci keneen lu nekk ci kaw asamaan ak suuf loolu lépp ci mbaaxu yàlla la ci yërmande yàlla la bu ma tàggat jëmale ko ci yéen loolu naka lan lañ gën a tuddee bu ñu lay yëgee nga xam ne yaa ngi sant yàlla alhamdulillah di sant yàlla ci xéewal yi waaye it sa jëmm ji jóg ci cant googee ca mooy la yàlla subhanahu wa taala digle ci ndigal nga taxaw te sa kemtaleen kàttan la nga xam ne yàlla da koo da koo tere bokk na ci sant yàlla ci yooyu yàlla jox la day loxo yaag tànk yaag nopp yaag bëgg ya doo ko def di ko mukk ci loo xam ne ni yàlla gërëmu ko mbokk ñett yi mooy daje ak cant doo ko mat lii nag suñu borom nee na lu néew ci jaam yi ñoo ci ñoo ñoo ci réussir wa qalilu min ibadiya shakur yàlla na yàlla boole ñi ci ñu néew ñooñe mbokk suñu borom day moom moo tudde boppam ak yi sant mu ne moom day sant na bal moo sax di sant mooy ashakir mooy ashakur suñu borom yàlla boobi tuyaaba moo ko defal bokk na sant dam lay sant lum niiw niiw dana la malaaka yi bindal leen ko muy fukk tuyaaba bal looloo ci gën a néew mën na ko yóbbu ba juróom-ñaari téeméeri tuyaaba mën na koo ful sax lu ëpp loole ndax fa lay yem déedéet dana ca boole di la tànk ci kanamu malaaka yi xool leen sama jaam diw moom day waay moom may sant ca it dana sant jaam bi sant yàlla ca la ko yàlla defal ñu jëmale ko ci jaamu yàlla yi dana sant jaamu yàlla yi ñoom it ñu sant la suñu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne yàlla jaarale na xiiwal mu ñëw ci yow kookee boo ko santum santoo yàlla loolee kon yow mi nga xam ni bala yàlla xiiwali sant nga yàlla def sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa jaamu yàlla yi da nga boole cantuk yàlla yeyoo cant doomu aadama yi sant nañ lam sant ñu la nag mbokk alquran léegi sant googee wax na ko ci waxin yu teqalikoo yu bari lool bokk na ci loolee suñu borom yàlla digal ñu ne dañ koy sant ca dañ koy fàtte dañ koy wedd loolee yàlla dañu koo tere gannaaw ba suñu borom yàlla ne jaamam ñi nga xam ne dañ koy sant de di leen mbugal mu man lu may doyee di leen mbugal fekk yéen a nga may sant loolu la ko yàlla jàll wa ala waxe xam leen ne mbokk xéewal bi la yàlla defal nga sant sa boroom delloo ko fa neex yàlla xéewal boogee day sax indi beneen xéewal amma bu nee ne xéewal ga la yàlla defal santoote yàlla xéewal ga day dem imma mu dem wala barke ba dem lan moo koy remplacer mooy mbugal moo tax suñu borom ne fii ngeen ni nga may sant ma leen di dolli waaye fii ngeen ni nga may leen di samay mbugal nekk na loo xam ne nii lu tar la mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla day moo ñu bind séddale ñu nee na ñaar rek la ñu nag ñi nga xam ne yàlla dëppaloo na leen ñuy sant ak ña nga xam ne da ngay sant leneen dudul yàlla wala fàtte xéewlu yàlla yi imma shakiran wa imma kafura loolu bopp waaye ji nga xam ne dafay yëg ne man kat xéewal yi ci yàlla la jóge ku mel noonu day ak bew moom rëcc na ca ngistal rëcc na ca puukarew ci kaw gaal yi rëcc na ca ndax day xam ne du moom moo may boppam waaye yàlla ka nattoo xéewal bi waaye itamit dana mucc ci iñaane keneen ku yàlla defal xéewal képp ku yàlla defal tey day ñaan yàlla barkeel ko ca moom yàlla may ko lu gën loole borom boobu subhanahu wa taala moom la ñuy wax ci aaya yoo xam ne nii lu bari la bokk na ca ca doon wax kuy sant de yaa ngi sant ngir sa bopp képp koo xam ne weddi nga sa borom yàlla mooy ka nga xam ne mooy ku woom leen waaye yàlla waay yow moo ko jurit xamal ni xéewal ñaa yàlla yi ñaari xéewal la am na xéewal bu matale lool ak xéewal goo xam ne da caa dolliku xéewal bi gën a mag ci xéewal yi mooy lan mooy xéewal diine mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na bis na ko tey day matal naa seen diine mottali naa samay xéewal ci yéen gërëm lislaam mu nekk seen diine loolu tax jurit bi day yëg ne mbooleen ñi nga xam ne ñooy dund ci kaw suuf ka ca ëpp xiiwal mooy ka ca ëpp lu muy dund ci diine yàlla ci ka ëpp la mu xam ci diine ëpp la muy dund ci diine kooku moo ëpp xiiwal ci jaamu yàlla yi te xiiwalu diine mooy xiiwal yi tiim yëpp mooy di lay jëriñ àdduna di la jëriñ àllaaxira gannaaw loolu mu am xiiwal yi nga xam ne yàlla nga ko boole jullit ñi yéeféer yépp ca mooy xiiwalu may la nga lekk may la nga naan may la looy sol may la koo dëkke may la looy war may la jàmm ci suñu réew may la ak wér gi yaram xottil la sa bët yi ngay gis ubbil la say nopp ngay dégg may la xel mooy xalaate tànk yaa ngi nii di dox loxo yi jële ko joxe ay xiiwal yoo xam ne kenn mënu koo fekk doomu aadama bi dafa war a yëg ni xiiwal bu mën a doon daf koo ñeel cant spécial ñeel ba ko xiiwal bu la yàlla xiiwal rek am na cant bu mu jagleel te mooy nga xool lu tax yàlla xiiwal ma lii loolee nga jëfandikoo ko fa neex yàlla heure boo yeggee fu leen suñu borom ne arrêté nga arrêté loolu lañ lay wax ci bët ya ci nopp ya ci tànk ya ci lépp lu mën a doon et yéen mbokk julit suñu borom yàlla moo ñu bind moo ñu sàkk génn ñu suñu biiru yaay lu nekk ci ñun moo ñu ko ci defal lu ñu am ci àdduna moo ñu ko jox loolee xéewal bu màgg la waaye bul fàtte li ma la waxoon ci ne la gën a màgg loolu lépp mooy xéewalu diini tey jii yow mi xëy suba di wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ana ñaati milliard ci doomu aadama ñooy dund ci kaw suuf tey musuñoo dégg laa ilaha illa allah musuñoo dégg muhammad rasulullah xamuñu luy julli xamuñu luy baax sa borom yàlla subhanahu wa taala tànn la yow boole la ci ñooñu loolee mbokk dañ caa war a sant yàlla ca ngay dund ko dundal ko màggal ko woote ca lii mooy la nga xam ne mooy la nga xam ne mooy jëriñ doomu aadama yeneen xéewal yi tamit naka noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala day mooy xéewale ca mooy barkeel doomu aadama bi nga sant dara ko xéewal dolli xéewalam amma képp koo xam ne santoo ko borom bi nee na dana la nax nu may naxee léeg-léeg mooy yokk xéewal yi waaye dindi barke ba ca nekk mu war nga ñu ko doon fitna ñeel la loolu mbokk ak a bay loolu loo xam ne dañ koy gis na nga xamante ni mooy yéeféer yi su ko defee mbokk ak julit bi mooy ki nga xam ne mooy bàyyi xel xéewal yi day maa ngi koy xéewloo ci kaw suuf waaye nag day facture baa ngi may xaar alaxira facture baa ngi may xaar alaxira te mooy boole ni xéewal yi la yàlla defal ci kaw suuf dana ñëw sa kanamu borom mu fàttali la ko benn par benn laaj la nag ana lan nga ci taxawe woon borom bi ne summa la tusalunna yawma idin an innaimin yowmal qiyaama boole di xéewal xam leen ne dinaa leen ko laaj su ko defee mu bokk ci la nga xamee ne mooy ab jaam dëgg lu mu war a taxawe mooy fu mu toll rek mu yëg ne man kat jaamu wu ma yàlla lu yeyoo xéewal yi ma xéewal sant ma yàlla lu yeyoo xéewal yi ma xéewal te wallahi looluy dëgg looluy dëgg loolu mooy tax xéewal yi màgg ci yow doo ko xeeb loolu mooy tax ba ngay bokk ci jaam yi sant waaye it ñu bàyyi xel ana ñaata ay jaam yoo dëkkal ana yaata ay jaam yoo xam nga xam ne suñu sañoon mel na yow loolu boo ko yëgee danga rusatit taxaw di jàmbat moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam daan ñu wax képp kenn ci yéen nay xool jaami yàlla yi mu tani bul xool mukk jaamu yàlla yi la tani ndax loolu day tax ba yow doo mën a gisa ci xéewul yàlla ci yow mbokk wallahi ñi ngi dund jamono boo xam ne bu ñu dajale woon xiiwal yi yàlla defaloon suñuy maam yépp matul azaka li ñu yàlla defal ci xiiwal waaye boo xoolee ñi ci tey ñoo dàq jàmbat ñoo dàq saalit ñoo gën a gaaw ak jaaxle lan ñoo ko waral ndax lu ñu manki la déedéet mooy lu ñeneen ñi am ca ëwma ko lii rek moo sonal doomu aadama yi waaye li ëpp ci doomu aadama yi ñu ngi dund xéewal yu jéggi dayoo ay mbokk julit fii may waxe ak yéen en deux mille dix huit loo xam ne matagul téeméeri at laajal xale yi jàng lan moo fi xewoon dans la crise des années trente ci loo xam ne nii atten ci ay juróom-ñetti fukki at jëm juróom-ñeent fukki at sunu maam yi yàlla nattoo woon na leen rafle gu tor kër gu mag léeg-léeg benn sër moo fay nekk ku génn waddoo ko bu ko defee ñu bari ci ñun guddi dañuy génn ay nit ñoo xam ne daanañ toog kër boo xam ne di jóge weer cin bu dàq ci kër gi ngir ab xiif sunu maam yi sonnoon ndax ci la yem suñu borom tege leen leen ay guerre yu tor tubaab bi ñëw fii colonise ñu képp ku baax ci ñun ñuy takk yeewu yóbbu laajit leen xale yi dem bori lii ma lay wax ni lépp mbokk julit da ngay gis ne bërki démboo njaay la xew am naa xoolal tey fërilay xamdu ñun ñëpp ñu ngi ci jàmm rawatina ñun ñu yàlla musul ci guerre yàlla yàlla continue ci musul ma tax mbokk xam ngeen ñi nga xam ne ni dañuy toog lu mel ni li xew ay Palestine la nga xam ne mooy xew ay Gaza nga xam ne léegi dañ naan la day am guddi yoo xam ne mënoo chronomètre cinq minutes loolu am na benn kënu bu tàkk dal ci seen kaw loolu yow yàlla musal na la ci problème bi gën a rëy mooy naan ndox maa ngi nekk kaza ba kaza yaa ngi nekk ci jàmm yaa ngi lekk yaa ngi naan lii mbokk dafa war jaam bu mu mën a doon doon koo xam ne fu mu toll day sant yàlla sant yàlla ci yëpp xéewalam sant yàlla ci màggal ko waaye sant yàlla ci la suñu borom waxoon te ñu fàttali ko woon qaaruna mooy ahsin kama ahsana allahu ilayk képp koo xam ne yëg nga ne tane nga ko nga dimbali ko ni la yàlla dimbale séddoo ak moom la nga xam ne moom mooy xéewal yooyee lii mbokk da ngay gis mooy la gën a màgg lu doomu aadama di jëriñoo ci ay xéewalu yàlla na am mbokk bi kër gi dañ koy jëkkee dee bàkk fi oto bi da ngay dee bàkk fi lépp lu mën a dafay dee bàkk fi mais xéewal yàlla yàlla wërsëgal nga jël ci séddoo ko sa mbokk julit loolu moom da ngay xar alaxira loolu mooy li gën a màgg ci loo xam ni yaa ngi koy nekk di ko sante xoolal suñu yonent salaa sallam misaal bu ñu ci jox nee na ñetti nit a ngi ci bani israil kii yàlla da koo nattoo mu daal di doon ko silmaxa kii suñu borom yàlla subhanahu wa taala nattoo ko ma nga doon koo xam ne dafa gaana kii yàlla nattoo ko ma nga doon koo xam ne bopp ba dafa am feebar bu ci nekk mu daal di doon leel amul dara te xam ngeen ne rawatina dëkk arab yi yooyu ku mel noonu dañ lay xeet ndax amoo karaw bis yàlla yónni benn malaaka malaaka bi ñëw ci sil ci waa ji nga xam ne dafa gaana da ko waaye yow day yaa ngi ci natt yàlla mu ne man kay gis nga fu ma dem ñu dàq ma fu ma dem nangam fu ma dem nangam mu ne ko waaye ci ma daan ñaanal yàlla bi wér mu ne ko wér loolu koy su ma ko amoon am na adduna bi ci biiram mu daal di koy ñaanal yàlla ci saa si waa ji wér mais gis nga maadaam wér na wér gi moo doon problème am doomu aadama du day day mu ne ko waa bëgg nga alal la mu ne ko waaw waaw mu ne ko loo bëgg mu ne ko man kay ay gileem laa bëgg mu daal di koy ñaanal daal dina ko am diggantil benn giléem yàlla yàlla barke waaga dem giléem yi di jur ba mu doon gétt bu rëy mu dem ca waa ji nga xam ne amul woon karo na ko waa yow loo bëgg mu ne ko xanaa rek sama morom yi fu ma dem ñu may saboté tey sama karaw gi bu génn noonu mu ñaanal ko yàlla karaw gi génn mu ne ko loo bëgg mu ne ko ay nag mu ñaanal ko yàlla wërsëgal ko nag yu bëri mu dem ci silmaxa bi na ko wàllu loo gën a bëgg ci àdduna mu ne xanaa gis rek ba mën a gis doomu aadama yi gis ngeen gis rek ba mën a gis doomu aadama yi mu ñaanal ko yàlla may ko mu gis mu ne ko loo bëgg ci alal mu ne ko ay xar mu ñaanal ko mu am géntu xar suñu borom bàyyi ca déwén sa mu yónni waa malaaka ci malaaka bi ñëw yor melokaanu faqiir bu amul dara daal di ñëw ci gaana bi da ko ay diw man day dama tumuranke bëgg a dem dëkk sàngam ci awuma dara ma xam rek yàlla baaxe na la ma bëggoon nga may ma yóbbal bu ma demee mu ne ko waaye dama liggéey ah su ma alal ji dinaa liggéey bam ko dama ngi liggéey mu ne ko ah loolu nga wax mu ne waaw mu ne ko ah bu dee da ngay xel day yàlla na la yàlla delloo na nga meloon avant ngay am lii dem ca waa ji nga xam ne amul woon karaw wax ko même chose na ko dimbali ma mu ne ko waaye jógal nga ma liggéey yi mu ne ko waaye yow xanaa du yaa fi ñàkkoon yàlla may la mu ne ko man ñàkk man alal ji damaa mos a ñàkk alal ji maa ko fàggu nangam mu ne ko bu dee da ngay fen day yàlla yàlla delloo la ci da nga meloon mu dem ca silmaxa ba ne ko man day dama tumuranke ci yoon bëggoon a dem dëkk sangam bëggoon ko ma dimbali mu ne ko xëy demal jur gaa ngi nii man dama nekkoon silmaxa oomu woon dara sama borom baaxe na may gis mu baaxe ma alal alal gaa ngi nii lu la neex jëlal waa ji ne ko man day malaaka laa bu jóge ci sa borom yàlla subhanahu wa taala gërëm na la barkee nan la sa alal ci waaye sa mbokk yi day xool leen fii ñetti fan daan mel nañ meloon seen alal yépp dana dem bokk xadis yi buxaari muslim solo na ko yeneen ci bàyyi islam ba mu ñu koy jàngal loolu lu muy ñuy xamal mooy mbokk xéewal day sell la jóge waaye soo bëggee mu sax bëgg mu barkeel lu la yàlla wërsëgal dox ko doomu aadama yi fii yan kay bokk doomu aadama yi yàlla di ko yokk yàlla di ko barkeel yàlla di ko faxal lii mbokk mooy la nga xam ni moo jëm ci alal ci jaamu yàlla gi it noonu la ngalla waay di la yàlla xamal ci jaamu yàlla may la ko ci xam-xam dellul ci sa borom suñu yeneen bi salallahu alayhi wa sallam day yàlla defal na ko lum defulul kenn ndax nee na ko baal naa la loo ma fa def baal naa la loo nar a def yeneen ci boobu di daan taxaw guddi di taxaw di jàng alquran loo xam ne ndaw yi sahaaba yi kenn mënu ko ci woon a dab lu jege trois heures de temps daana ko taxaw ci benn rakka ba tànkam yi may yi ba tànkam yi xar ba bis ñoom Aïcha ne ko xanaa da ngaa fàtte ne yàlla baal na la loo mos a def ak loo nar a def mu wax leen benn kàddu bu gàtt afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk jaam buy sant yàlla du ma nekk lee xiiwal yu mag yooyu yëpp loolu kon mbokk nañuy sant yàlla ca ñaan yàlla boo nañu ci ñi koy sant yonente bi alayhi salaam waxoon na benn ci ndaw yi jurit ñoom yi Muaz ibn Jabal ne ko ay Muaz foo jullee ba pare del wax yàlla yàlla nañ ma dimbali ma lay fàttaliku yàlla nañ ma dimbali ma lay sant yàlla nañ ma dimbali ma rafetal jaamu gi ma lay jaamu ngalla waay yéen góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi jàng leen ñaan googee yàlla yàlla nañ ma dimbali ci ma lay fàttaliku yàlla nañ ma dimbali ci ma lay sant yàlla nañ ma dimbali ma jaamu la jaamu gu rafet yàlla yàlla dimbali ñu ñu boo boole ñu ci jaamam yi koy sant yàlla yàlla boole ñu ci jaamam yi koy fàttali ko fu ñu mën a toll yàlla yàlla boole jaam yi koy jaamu jaam nga gën a rafet yàlla yàlla boole ñu jaamam yi nga sant naka yeneen te nga doon sante yàlla yàlla yokk ay xéewalam ci ñun yàlla yàlla sàmmal ñu ko yàlla yàlla wërsëgal ñu bëggoo suñu mbokk julit lépp lu ñu yàlla laaj nar laaj yomal qiyaama yàlla fekkoon na tegoon nañ ko fa ngërëmam nekkoon ba yàlla boole ñu ngërëmu àdduna ngërëmu alaxira yàlla na yàlla defal ñu jàmmi àdduna jàmmi alaxira yàlla na yàlla defal ko woyotu ni defal ko boolem jëri jëri ci biir suuf yàlla na yàlla keetal ñu njaboot bi ila sirat almustaqim allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin